ah gaa gi dafa tëmboon barki démb si jeudi bi jeudi huit heures la tëmboon si suba war teer ajuma six heures si ngoon ajuma six heures si ngoon xaar ka terul ba sa ëllëg sa nu xaaraat ka ba ngoon teerul nu dem seet leen tëmbal ñeenti gal wër nañ len si géej gi yëpp océan bi yëpp gisuñu leen après à la fin si la leen benn projet fort projet bi ay doon dem liggéey di mbaali dal seen kaw dégg nga lu leen foree mu indi leen waaye cinq personnes woon ñett ñaan ñi dee ñett ñi ñoo sawee te ñett ñoo hôpital kenn ñaan ñi génn nañ mu des kenn ka waaw waaye alhamdulilah xam jot nañ jot ñoom ñëw nañ si jàmm waaye ñàkk nañ suñu ñaar sama doom ak sama mag dem na si sama doom am na quinze seize ans keneen gi am na ay juróom fukki ñaar presque waaw wala juróom fukki at benn yooyu am na ko. chef de pêche moom mais xamuñu ndax def nañ recherche wala defuñu recherche mais wax na leen daal comme na leen war a wax rek wax na leen waaye xamuñu ndax def nu wal def nañ ay démarches wala déet loolu moom c'est impossible leerul daal. ndogal yàlla rek àddina moom ñun moom géej mooy suñu métier te mën nu ko bàyyi bu noon dee ba jeex tamit du tee dañuy dem géej. kon dal gouvernement bi moo war jàppale portable yi no jaay pour satellite nu wañi ga parce que portable 900.000, 1 mille un million ko jënd si gaagu ndaw gaal go xamni da ngay ngir ay dépenses nga am saa nga am dara lo rousal fa sa yene soxlay kon bo su bëggee jënd ay portable 900.000, 800.000 koku dafa cher quoi wa nan nu mën rek encore suñu matériel ñewul matériel ba dem na gaal ga dem na machine ba dem na xam nga yoy yëpp tamit dafa xaw metti waaw yooyu dafa xaw metti waaw waaye sant yàlla rek waaw bëgg nañ daal gouvernement bi jàpp si daal jàpp si bu baax a baax. kon bu événement amee lu mel ne que géej soog am accident am amuñu foo koy waxee amuñu foo koy jooyee lu dul ci autorité yi kon bu ñu leen woowee jàpp naa ne war nañu mën a def le tout pour ñëw dimbali seeni ay doom seetle la seeni ay doom xam nga ba lu yàlla def nu xam ne loolu. waaye nag sant nañ yàlla bu baax ba nga xamante ne que xëy na gaal gi leen for tamit xam nga def na ként lay kàttanam moom it sax xëy na machine am moo paanoon mu waññeeku dal seen kaw kon tey kooku noonu tey bu fekkoon ni dalul seen kaw maar day taal dafa gën ñaaw juróom ñëpp dañoo des pari waaye nag yàlla dogalam xam nga bu ñëwee dañ koy nangu ñett ñi ñaar ñi nga xamante ne que ñoom ñoo ci dem kii doon wax léegi doomam la kenn ki magam la naa ngi dégg yeneen ñett ñi si des ñoom andi nañu bakkan te it wax dëgg yàlla bi ñu ñëwee gaal gi bi mu teere hôpital lañ la leen teer nu jël leen dugal leen hôpitalu Saint-Louis Ndar yaa ngi dégg ñu hôpitaliser leen yàlla def na si jàmm def na ci sutura ba ñaar ñi génn nañu xëy na kenn ki rek moo fa nekk en attendant nii fii may waxeeg yow nii.